Serigne Modou Bousso Dieng gannaaw ba ñu la nuyoo dalal la ci Sénégal 7 euh, ñu bëggoon rek nga dikkal ñi li nga xam ni moo xew ci direction des élections ci wàllum euh, liste yi nga xam ni moom la euh, Yewwi Askan Wi daal di dugal ban jàngat nga ñu ciy defal. suivre naa depuis démb mu nekk bruit bu mag ci biir Sénégal mais li ma ne di wax toujours rek li ëpp solo du pouvoir li ëpp solo du opposition li am solo c'est le peuple comme ci doon ci ñaari entité yeeg ci ñaari entité yi rek da nga war a yàgg naa théoriser loolu waxoon neen ko ci élection locale yi ne leen comportement mi gis ci opposition nii neexuma parce que chaque fois qu'il y ait qu'il y ait partage du pouvoir ñu fàtte peuple sénégal bi ce n'est pas joli c'est valable aussi pour le pouvoir c'est toujours valable aussi pour pour le pouvoir parce que su fekkee ne opposition ñoom ñoo defar seen liste effectivement te respecté wuñ parité bi ñoom ñoo condamnable non seulement que ñoom ñoo non seulement que ñoom ñoo nekkul ci dëgg mais ñoom ñoo responsable devant cet perte cette députés yi nga xam ne opposition ñoo ko waroon gagner de manière générale ñu perdre ko ñoom ñoo responsable su ma dégloo sëñ Cheikh Mbacké Bara Dolly ñoo ko tey xamoon nañ ko kenn ku ne góor nga joxe xamoon nañ ko donc loolu lu leer la su ma déggee Cheikh Bara Dolly li mu wax mais daal su fekkee ne euh, noonu la demee opposition ñoo faillir opposition ñoo égoïste ñoom ñoo faire perdre sept députés opposition sénégalaise bépp ak képp ku fi bëgg jële Macky Sall Macky Sall aussi su fekkee ne loi bi permettre na opposition ci dans soixante douze de délai yooyu délai de dépôt yooyu ñu mën a rectifier loolu te it permettre leen pour ñu rectifier ko Macky Sall continue sa dictature en ce moment peuple sénégalais doit faire face Parce que ce n'est pas une affaire de l'opposition, mais c'est une affaire de la démocratie, c'est une affaire de liberté, c'est une affaire du peuple sénégalais. Au-delà au de tout cela, j'ai toujours évoqué ne man pouvoir intéressé wu ma ba juddoo ba léegi maa ngi sant yàlla bokk naa ci ñi gëm ñi gën xam Sénégal ñi fi gën respecté te pourtant mësuma occupé aucune partie du pouvoir ni nominatif encore moins élective alhamdulillah mais toujours l'essentiel mooy ngay liggéey pour le peuple di wax pour le peuple di def pour le peuple ba ma njëkkee alerté neen opposition te du ma ci bokk radical bi man damay opposé ci dëgg teg ko ci yoon pour le peuple dañ doon wax ku ne wax la ne faalewuma leen et au fur et à mesure les faits l'histoire dama doon raison dama leen di wax ne leen man ànduma kenn man kontuma kenn peuple sénégalais laa àndal ak dëgg fu dëgg féete ma wax ko c'est ça l'essentiel mais manipulation yi ak wax yu bon yeeg insulte yi réew de su ko këf par la force qui ne passera pas le peuple du ko nangu peuple bi ànduñoo kenn rek dëgg lañ àndal peuple bi seen bopp lañ àndal de buñ bañee Macky Sall parce que Macky Sall ko ci dëgg su opposition wanee aussi comportement bu mel ne Macky Sall aussi dañuy seetaan opposition du gis tous c'est ça la vérité bu ñuy bañ Macky Sall melokaan a tax opposition dañu war a moytu comportement boobu mais saa bu falu ñëwee rek la wax lépp bavardage rek avant Macky Sall la bon Macky Sall def nii def nii mais su su par par su investiture ñëwee ñu wane comportement pire que donc ils sont responsables. gannaaw bi tam dégg na ni euh, hôpital bi nga xam ni moo nekk Touba te président de la république daal di ko fay def mu mel ni dañu bëgg liggéey bi commencé euh, loolu yow war nga ci réaction lan lay doon. Euh, effectivement concernant Touba bon dégg naa Macky Sall ci ci théâtre yi muy def ak ni mu yabee peuple Touba ni leen yabee toujours mu ne dinañ reprendre xaw ma activité ñu ne dina reprendre dinañ commencer activité. ci hôpital bu tuuba ma yaakaar ne hôpital boo xam ne daaw lañ ko inauguré woon ca màggal ga léegi ma def un ba léegi commencé gul daaw élection locale moo juboon mu ñëw inauguré ko ren aussi élection législative moo jub mu ne nañ ko nañ ko commencé mais ci diggante bi yëpp un bi amul soxla ci kuy dee ak kuy dund kooku yoonam nekku ci xam naa kon ba dañoo indi médicament yi dañuy bàyyi ba deux mille vingt quatre kon ba élection présidentielle jubaat encore yi. xam nga jàpp benn peuple local mënul passé loolu dama leen di wax ne leen investissement Macky Sall ci listam bii pourquoi waa Touba war ci tey waa Touba war na ci tey dix mille fois jusqu'à changement jusqu'à changement parce que Mimi Touré président Assemblée national officier de liste Amadou Ba prochain premier ministre éventuellement et après kan mooy nekkaat candidat am exemple je sais pas dans dans tout cela doomu Touba ñoom seen yoon nekkul ci dara doomu Touba ñoom comme Macky Sall a dans sa tête a écrit profondément dans tête mooy ku dëkk Touba moom waroo falu ñoom dañ ko contre kon waruñu am benn benn petite promotion waruñu am benn petite responsabilité dans les instances dirigeantes de euh, l'État non du tout il suffit que mu ñëw rek guddi daw ñëw ci sëñ bi. nax ñi mën nax corrompre ñi mën a corrompre ñi ci des faalewu leen mais changé wul ci logique am mooy doomu Touba moom du ko mas a promouvoir loolu ça doit s'arrêter ça doit s'arrêter loolu population Touba dañ ci war a yeewu dañ xam ne gis nga li leen di jariñ sur le plan politique loolu bokkut teg seen gëm-gëm ci sëriñ bi loolu seen liggéeyu boppu la ku baax yi danaan wax ne ëllëg de moom ëllëg de moom. lépp lu fa war a rek seen digganteeg seen boroom rek moom dinañ ko ci fekk mais tey nag nañuy fexe ba ba jéemal suñu bopp tey c'est extrêmement important daana wax aussi ne ñu bàyyi xel ci ku ñu mënal parce que ku la mënal ku ne dina la sañal te du ku la mënal ku nekk war laa sañal donc vu la jox Macky Sall le pouvoir absolu mu jëlaat ko xeexaat ko waa Touba encore ñàkk promouvoir encore doomu Touba c'est à revoir dafa war a changer loolu Macky Sall je l'invite à changer cela parce que bu changé wul loolu doomu Touba yi ak ku bëgg tuuba ak ku yaakaar Touba war nga xeex loolu ak foo mën nekk ak koo mën doon certes y a des traites peut-être parmi nous yoo xam ne xëy na petite parcelle du pouvoir wala petit truc mu ne gën loolu mais loolu nit ku nekk communauté am na ko gënal boppam nit ku nekk li mu gëm te li ñu boolee Touba bari na parce que gëm-gëm d'ailleurs parce que sëñ Touba la ñu gëm Touba lañ dëkk aussi en même temps Touba aussi mooy suñu famille kon yaakaar naa ne te murit bu nekk noonu la waxuma nag ñu ne way parce que affaire nationale la Sénégal benn dëgg la Sénégal benn la mais communauté yi luñ benn. Sénégal, c'est une nation. Une nation est composée de plusieurs différentes communautés. communauté bu nekk ak sa bos noonu lañ noon la noon la noonu lañ jàngalee constitution d'un état noon la noonu la jàngalee constitution d'un état c'est à respecter obligatoirement malheureusement Macky Sall ne l'a pas respecté par des raisons politiciennes par des raisons de par des raisons parce qu'il n'a pas gagné, par des raisons inconnues. Inconnues. Mais li Montesquieu jàngale construction d'un État mooy dañu jël toutes les sensibilités mais pourquoi Touba toujours ne mérite pas euh, d'être dans les instances c'est à combattre dès tout de suite aujourd'hui voilà donc yaakaar naa ne président war na changer loolu war na aborder question boobu war na wax ci loolu pour mériter le vote de Touba amuñu benn intime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 Sénégal7.com. Sénégal le roi de l'information en temps